boo ko internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm ma ne ko ca cëy yàlla cëy ay waaye metti na Gàmbi it metti na ñu daal ci kum njaay lëmbe na réew mi daal wala àddina bi sax laay wax cëy yàlla lii benn xale bu jigéen la ndeysaan xale bu jigéen bi nee na moom bi mu nekkee xale lañ ko mayoon benn bàjjanam ndeysaan nee na bàjjan bi Gàmbi la nekk ñu may ko bàjjan bi mais ne bi mu nekkee ak bàjjen bi jamono yooyu bàjjen bi dafa amoon ñaari doom yu jigéen ñaari doom yu jigéen yi nag kenn ku ci ne sëyi woon nga bàjjen bi it ci noonu amoon na it benn doom bu góor boo xam ne dafa tukki woon nekk bitim réew xale bu jigéen bi nee na ma nekk ak sama bàjjen nekk ak sama bàjjen ba ay jimmi jamono rekk sama bàjjen daal di feebar ndeysaan feebar feebar boo xam ne dootuma mën a toppatoo ma ne ko ci cey yàlla cey eskay nee na bi bàjjan bi feebaree kenn ci doomu bàjjenam yi ñëw jël si ko yóbbu ko këram pour assurer intérim bi vu que yaayam a ko yoroon ba feebar kenn ci ñoom ñëw jël ko yóbbu ko këram gi muy sëy nekk ak moom mais nee na soxna Faatu sama doomu bàjjan bi bi ma yóbbee këram daf ma doon torturer di ma dóor di ma xas te nee na duma ko def dara dara dara dara dara nee na day jël lekk ma togg ba pare bu ñu yàkkee mu daldi may ber yàkk mook jëkkëram ak i doomam ñuy añ man mu tibbal ma mu daldi may ber ndeysaan ne na ba am na benn jour sax jëkkëram ni ko yow kii ni nga ko yoree dara rafetu ci kii sa rakk la yow sa yaay ak papaam ñoo bokk ndey ak baay ñu may ko sa yaay sa yaay feebar nga jël ko ba pare nga koy torturer kii sa rakk la waru koo torturer mais nee na loolu taxul doomu bàjjen bi wàññi lim ko doon def doomu bàjjen bi daal da koy torturer da koy xas da koy liggéeyloo liggéey yu metti maanaam mayu ko jàmm daal mayu ko jàmm mayu ko salaam ndeysaan ne ci noonu nag bu tabaski musaana jot sax doomu bàjjen bi du ko xottil du ko jëndal yére du ko jëndal daal du ko toppatoo du ko jox mu léttu ne na ba jëkkër ji loolu ne na jëkkër ji ci boppam moo ko daan mujj gi bu tabaski jotee jëkkër ji daal di koy xottil ndeysaan nee na ñu continuer ci dund bu metti boobu nee na ba ay jëmmi jamono doomu bàjjen bi dal di voyager voyager voyager bu yàgg sax daal di koy bàyyeek jëkkëram ji ci biir kër gi nee na bi mu ko bàyyeeg jëkkër ji ci biir kër gi nee na jëkkër ji ndeysaan yërëm ko di ko toppatoo ndax doomu bàjjan bi nee na voyage bi dafa yàggoon léegi jëkkër ji di ko toppatoo di ko jox muy jënd lu mu bëgg di ko jox muy lekk di ko jox muy naan ba pare moom muy toppatoo ah, doom yi nga xam ne moom la fa doomu bàjjen bi bàyyi. nee na ay tëbaskee korité bu ñu ñëwee aussi jëkkëru euh, cousine bi daal di koy xottil toppatoo ko jëndal ko ay yére ak ay dàll maanaam bëggu ko daal comme doomam di ko toppatoo. nee na ci noonu ndaw si voyagé na ba ñëw ndax dafa yàggoon ci voyage bi nee bi ndaw si ñëwee. daal di koy woo ci pet di ko laaj ne ko yow bi ma tukkee yaag sama jëkkër lan ngeen doon def ci kër gi nee na mu ne ko sa jëkkër defuñu dara nee na mu ne ko lan la doon jox nee na mu ne ko ah xanaa mu jox ma dépense yi ma togg ñuy añ ak bu heure sang xale jotee ma sang leen ba ñu set jox leen ñu lekk yóbbu leen ñu jàngi mais daal en tout cas sa jëkkër moom ku baax la wax dëgg yàlla musuma def lu ma naqari bi nga voyagé nee ndaw si daal di bàyyi noonu mu sedd nee ci diggante bi aussi ndaw si continuer torture yi maanaam da koy xas sans raison ndaw si daal su amee envie dóor ko rek day dóor moom du xaar sax mu def ko dara nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu muy gën di màgg ci diggante bi euh, doomu bàjjanam bi tukki woon mooy ku góor ki ndax bàjjanam ñaari doom yu jigéen la am ak benn doom bu góor bu voyagé woon jamono yuñ koy indil bàjjan bi nee na kooku daal di jóge voyage jóge bitim réew ñibbi si bi nee bi kooku ñibbisee gis ko rek ndeysaan daal di koy nopp daal di koy bëgg ba pare jël décision pour takku ko ndeysaan ma ne ko ci cey cey yàlla nee na bi kooku décidé pour takku ko nee na cousine bi bañ cousine bi ne kooku kii bu ko takk kii dafa bon dafa reew maanaam daal xam ngeen jamonoy léegi yàq deru nit yomb na soo weetee bu la neexee sax nga jiñ ko dëmm bu ko defee ñi nga xam ne ñooy nitu dëgg teey ci mbir mi ñi nga xam ne nag dañu yàqamti dégg téll ne damm na accusé la sans raison ndeysaan ne ne doomu bàjjen bi yàq der deram wax freer bi ne ko kii baaxul bul ko takk nii la mel naa la mel ne ba freer bi xaw a reculer ndeysaan nee na moom it mu toog bàyyi jàpp ci yàlla waxul dara toog ndeysaan nee na benn jour mu tëdd ci néeg bi di nelaw nee fekk kër gi kenn nekku fa nee na frère bi ci boppam fekk ko ci néeg bi daal di delloo bunt bi daal di koy violer ma ne ko cëy yàlla ba leen doomu jàmbur yi ngeen cukkum njaay fu seen xel mi nekkee ci cukkum njaay rek ngeen engagé doomu jàmbur yow ñëw nga bëgg nga jigéen bëgg koo takk sa sœur génn la ci nga di ba mel ni xaw ma ñett fukk yu manqué xaw ma nu ko olof di waxee ba takkoo ko comme nee nga gëm nga di la sa sœur wax kon loo ci xemmem nga di ko fekk nee mu tëdd nga di ko viole mën a tooñ rek billaay man damaa yaakaar ne nit ñi dañoo defa ne àddina moom du jeex xanaa yow kay dang koo noboon nga déglu ay conseil yu bon ba ba nga annulé nob gi nga ko noboon comme ni nga ko waxee loo koy violé ñene bi ko xale bu góor bi violé violé ko ba pare menacé ko ne ko nag bu ma dégg ne lii ñu sekk wax nga ko ndeysaan ñu ne ci noonu ma ragal ndax man déjà sama cousine bi rek mooy sëram bi ko tere mu takk ma rek dafa ma nappa napp ba ñemewu maa wax nee na ma nëbb viol bi muñ ko nee na am na ci même jour bi sax nee na yónni nañ ko kër bàjjenam mu dem nee bi mu demee bàjjan bi seetlu ko ne ko yow tey dangaa xaw a bizarre nee na mu ne bàjjan bi du dara sama xol bi moo neexul rek nee na bàjjen bi daal di koy bàyyi daal ne ko waa massa après mu dellu mais nee na boobu loolu la doon dund. nee na ci noonu nag bu mu muñee viol bi ba viol bi tane mu mu tane nee na moo xale bu góor bi ñu continuer dëkk ci kër gi mooy euh, xale cousin cousin wam bi jóge bitim réew. nee na yàlla nattu ko donte cousin bi violé na ko moom ak yàlla rek ak cousin bi ñoo xam. mais yàlla da ko mujje nattu mu daldi di nopp cousin bi ndeysaan ma ne ko ci cay soxna si ku la def lu metti bu ko nopp ku la néega def lu metti kooku amul ci yow benn yërmande ndeysaan mais nag nattu la ndeysaan nee bi mu nobee cousin bi moo cousin bi ñuy génn ci suuf ndax cousin bi dem na ba nànd ne moom da koo nopp cousin bi ñëw di génn ak moom mais bi cousin bi di génn ak moom dane ko fexeel ba waa kër gi bu ñu xam ne man ak yow dañuy génn gis nga dañuy profité ci xale yi nga xamante ne xam nañu le fait que ñi leen yar dañ leen a napp xam nañ ni xale yi aussi ay innocente lañu xamuñu yenn xam yi ñu profité ci ñoom abusé ci loolu di leen tëddee di leen violé te kenn du wax mais jamono ji metti na de yi metti na léegi mu ne ko nañ génn ba pare daal di koy demander bu kenn xam xale bi it ak ak accepté ndeysaan parce que moom it mi ngi koy nëbb ndax amul fenn jàmm nee na ñuy génn parfois ñu nëbbatu am fu ñu dem nee ñu dëkkee noonu nekk ci ci cukkum njaay ji nekk ci nekk ci nee na ba yàlla nattu ko mu jëlee ci ëmb ndeysaan nee bi mu ëmbee mu wax ko waa ji nee na waa ji ni ko man xam naa ne maa la ëmbal de mooy doomu ndijaayam doomu bàjjanam bi jóge woon Europe bu ko takk cousine bi ko yar bañ ne ko maa la ëmbal waaye fexeel ba buñ la laajee ku ëmbal bul wax man la nee na doomu doomu bàjjan bi toppoo ko bul wax man la daal di koy napp nee na mu daal di noppi nangu la wax ku ko ëmbal nee na ci noonu cousine bi ëmb bi feeñ nee na bi di ko torturer ci ëmb bi di ko dóor di ko xas di ko wax di nga wax tey kan moo la ëmbal mbaama rey la malgré loolu ki ko ëmbal mi ngi ci kër gi di gis ñu koy torturer mu ne pat non am na ñu ñu néeg te soxor billaahi wallaahi waaye man ñiy jur seeni doom di ko maye ñooñu tamit kon condamné naa leen téye leen seen njaboot yi même bu ngeen dee lekku mëkk suuf téye leen seen doomi waaye jur doom maye ko après nga bàyyi xamoo ndax ñu ngi koy torturer walla déet ëmbal ko ba pare menacé ko ne bu ko wax sa sœur boo bokkal ndey ak baay di ko maltraité chaque jour ci biir kër gi di ko dóor di ko wax far force di nga wax ku la ëmbal ngay gis niñ koy torturé te doom ji mu ëmb yow yaa ko jur ba pare nga ne patt ba pare yow soo toogee est-ce que di nga fier ci sa bopp ndeysaan nee na biñ ko torturé ba sonn nangu la ñeppi gémmiñam ne waa ji moo ko ëmbal nee ñu mujj ñu bàyyi ko ndeysaan nee na mu nekk ak ëmbam nekk ak ëmbam ba yàlla dimbali ko mu daal di am ay jumeaux ñaari doom yu góor noo sëñ bi yaa nekk xanaa sax nag ba mu demee ba amal la ñaari doom yu góor ak ay seex ni mu neexee wallaahi wallaahi nga mën a feeñu nag ne leen maa ko ëmbaloon jéggalu ne maa juum mais nee na ba tey waa ji waxul ne moom moo ëmbal moom moo ko ëmbal nena mu boot seex yi nàmpal leen ba actuellement seex yi am nañu cinq seen papa ngi ci biir kër gi moom mu nekk ci biir kër gi muy cousin wam boobu jóge woon bitim réew mais ba tey kenn xamul ne jumeau yi cousin bi mooy seen papa ndeysaan nee na bi ñu jógee ci loolu bàyyi na kook jumeau yi mu nàmpal leen ba xale yi am cinquant léegi nee na macha allah xale yi dëgër nañu nee na doom bi bàjjen bi xëy un jour rek dem takk jabar takk jabar ndeysaan indi ko ci biir kër gi ëmbal ko ñu am ay jumeaux ñoom ñaar kese ak yàlla ñoo ko xam mu dem takk jabar indi ko ci biir kër gi soxna faatu ndeysaan nee na mu nekk lu mettee metti ma di ko souffrir mais ñamewu maa wax ma bàyyi mu sedd nee na ci noonu ma toogaat ba mu yàgg sama doomu baayu doomu bàjjan bi gis ma maanaam doomu bàjjan bi ko ëmbal di ko nëbb ba jooni yàlla tey kenn xamul ne moo jur jumeau yi doomu baayam nobaat ko bu ko takk xam nga kooku yëgul relation bi léegi bi ko kooku nobee déglu leen cousinu xale bu jigéen bi li mu wax doomu baayu waa ji doom seen doomu baay bi dani ko kii mënoo koo takk parce que sama frère moo ci moo ko jëkkoon a nopp mu bañ te ndaw si bañul de ñoom ñoo bañ loo frère bi te frère bi ëmbal na ko nii mu am ay jumeaux mais frère bi da koo nëbbu famille bi moom ak xale bu jigéen bi rek ñoo ko xam léegi doomu baay seen doomu baay ñëw bëgg koo takk ñu ne ko mënoo koo takk ndax suñu frère bi jóge bitim réew da koo bëggoon a takk mu bañ ñu sosal ndaw si encore te du ndaw see bañ ñoom ñoo bañ loo waa ji muy muy muy ay torture yoo xamante ne man daal man xaw ma fi liilu ko fi jar xale bu ndaw ngeen di wax lu dul dëgg ci kanamam pour seen intérêt personnel ne na sëy boobu noonu lañ ko bañee encore ñu ne doom baay boobu mënulaa takk ndax suñu fereer bi moo la noboon nga bañ te c'est le contraire ne na ñu jóge ci loolu beneen waay dox daje gis ko bëggu ko nee na moog waa ji ñu commencé génn waa ji bëgg ko mu bëgg waa ji ñoom ñaar ñu nekk ci relation di génn nee na bi waa ji ñëwee pour demander ko mariage encore cousine bi bañ cousine bi bañ man cousine bi laa bëgg demandé moom quel est problème cousine bi bañ nee na bi cousine bi bañee ki mu bëgganteel ne duñ ko ko may ñu dem forcer ko beneen góor boo xam ne bëggul yaacawul loolu mooy xool nit rek bañ ko ne jàmm du ko am ci àddina yow àddina du yàgg ba mu wujjeeg yow doo ko bàyyi mu sëyëg ki mu bëgg mais sa frère bu koo takk nga bañ loo sa frère sa frère violé ko mu bës sa frère ëmbal ko ay jumeaux ba tey mu muñ noppi seen doom baay bu koo takk ngeen ngeen sosal ko ku mu bëgganteel ñëw bu ko takk encore ngeen ne yéen a bañ loolooy signifier dafa am nit ñoo xamante ne dañuy xool ni rek ne kii dañ koy mbugal ci kaw suuf bi biñ ko bañee may ki mu bëgganteel nee na ñu forcé ko benn waay ndeysaan biñ ko forcé waa ji nee fexe fexe ba may ko waajooju te bëggul waa ji nee na mu dem kër waa ji sëyi fa nee na ma soxna faatu une semaine laa def ca sëy boobu une semaine laa fa def ma daw ndeysaan ma ne ko nekk koo bëggul dafa metti de aka metti billaahi bu dee une minute nga toog ak moom day mel ni 30 jours nga nekk ak moom ndax soof da dalay soof billaahi dalay soof lii mooy torturer nit eh, yàlla baax na nee bi mu dawee ñamewul a dellu ci kër gi nee na xel mi fum ko jox mooy waa ji mu bëgganteloon waa ji bëgg ko mu bëgg waa ji ñu bañ ne duñ ko ko may nee na xel mi foofu la ko jox mu daw dem foofu nene bi mu dawee dem foofu moog waa ji waa ji téye ko fa encore une semaine moog waa ji ñu nekk fa nee na biñ fa nekkee après mbokk yu yëg ko dem jëli ko fexe fexe ba jëli ko indi ko ci kër gi mais nee na bi biñ ko indee ci kër gi quelques mois après rek ëmb dafa feeñ maanaam mu ëmb léegi nag moom nee na xam na ni doom ji mu ëmb ñoom ñëpp dañu jàpp ne waa dañ ko muuraloon mu sëyi fa moo jur doom ji ndax nee na bi mu amee doom waa ji moo jël xale bi yóbbu këram ngénte ko mooy jëkkër ji kiñ ko may te mu def fa une semaine daw nee na kooku moo ngénte xale bi moom nag juuru ngénte xale bi demul ndax moom bëggul waa ji fa mu toog la toog ñu jël xale bi yóbbu ko ngénte ko indiwaat ko ngénte seen ngénte bu neex moom moom ki jur xale bi demul nee na moom actuellement nii nii nii xam na ne jëkkër ji jurul doom ji copain bi mu bëgganteel te ñu ne duñ ko ko may ba mu dawee kër kooku la dem am fa une semaine nee na moom wóor na ko ne kooku moo jur doom ji ëmb bi ci semaine boobu la ko ëmb loolu la wax moom ndaw si nee na nag waa ji xam na ne copain bi xam na ne moo jur doom ji moom xam na ne copain bi moo jur doom ji mais jëkkër ji dafa jàpp ne moo jur doom ji ba ngénte na doom ji ba pare fu mu toll naan sama doom sama doom léegi moom problème am mooy nee na mbokku internet di ngeen jàppale ko ci xel ci conseil ndax day wax ex bi day wax jëkkër ji doom ji nga ngénte juróo ko sama copain bi moo ko jur walla mu bañ ko koo wax ndax nee na moo copain bi moom xam nañ ne jëkkër ji jurul doom ji jëkkër ji nag mi ngi ngénte doom ju mu ak di ko xëccoo di ko tiitaroo te juru ko léegi ndax mu wax ko ko walla déet ak tamit su ko waxee nan lay réagir nee na loolu mooy problème am te moom it dafa bëgg wax ne jëkkër ji yow juróo doom ji sama copain bi moo jur doom ji léegi nag mbokk internet di ndaw si lii mooy problème am laaj bi la samp moom la laaj ndax mu wax jëkkër ji xale bi juróo ko sama copain bi moo ko jur ak waa kër gi mu leeral leen ko te it man li ma ciy dolli mooy ndaw si waxal waa kër gi sa cousin boobu nekk ci kër gi takk jabar moo jur jumeaux yi jumeaux yi aussi il faut que ñu xam seen papa parce que loolu sax ci conseil yi la bokk parce que xale yooyu tamit dañoo war a xam seen papa dañ koo war ndax suñu màggee dinañ la sonal naan la kan mooy suñu papa sa cousin bi moo la violé ci biir kër gi ëmbal la ay jumeaux ci biir kër gi xam na ko nga xam ko ba pare mu ne muut ak moom takk jabaram yow tamit waxal nit ñi ne moom moo jur say doom ndax bu ëllëgee dina la jural ay conséquences ay ca mi ngi noonu mbokk internautes di lii lañ leen indiloon ngeen conseillé ko ci bu baax a baax parce que ndaw si dafa jaaxle beneen bi aussi may waxaat rek tamit waajur yi nañ téye seen doom yi des fois da ngay gis ku jël doom maye ko ba pare fàtte ko fa fekk billaahi xale bi ñu ngi koy mbugal mbugal boo xam ne li olof naan doom joo jurul doo am ci moom yërmande comme ni nga waree am ci moom yërmande am na nag ñu baax ndeysaan ñoo xam ne munoo xàmme seen doom ak seen doom bi moroom am na ñu baax mais am na ñoo xam ne soo leen joxee doomu jàmbur moom la ñuy def fasu kursu ci kër gi seeni doom du ñu dem yónneen kooku lañuy ñuy yónni kooku la ñuy xool ay mën a lekkam kooku la ñuy xool ay mën a naanam singale ko duñ ko may jàmm duñ ko may salaam torturer ko torturer ko yow fekk yow mi ko maye yow lijjantiwoo ko man nag yenn yii na ma yàlla baal bëgg lu yomb rek laa ko teg ŋànk leen xale yi ci seeni bëñ bàyyi jur doom ba pare jël di ko maye dëkk ak dëkk réew ak réew soo ko mayee dëkk ak dëkk réew ak réew xamoo ci yan condition la nekk xanaa temps en temps sax nga dem xooli sa doom ci lu mu ne su fekkee ne gis nga ne condition yi baaxul nga jëlaat sa doom ndànk mais maye ko fa fàtte ko fa ñu koy torturer xam nga ne doomu bàjjen bi nii mu def xale bi du dëgg du yoon torturer ko torturer ko ba pare ku ko bëgg a takk mu xaañ ko ko man man question boobu man laay posé wu lan la soxor la walla lan mu nekk lu ñaaw a ñaaw a ñaaw mais nag la faute bi rek mooy ci ñi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb am seeni doom ba pare di daw dépense wala di daw yor bi di jël di maye di maye maye da nga koy teg ci yoon. maye da nga koy teg ci yoon mun ngaa xool koo xamante ne xam nga ni kii xëy na sa mbokk la amul doom amul dara nga yëkkati sa benn doom nga may ko ko. pour xale bi wéttali ko kooku dina am ku ko wéetal te dina ko téye mais koo xam ne am na ay doomam yu mag nga may ko doom ji mu jëlaat doom yi joxaat doom yi ñuy ping pong xale bi du xam benn kër bu tayee mu yendu kër gi bu subaa yendu kër gi xale bi day tàmm dund wereyaan dunde wereyaan nag yàlla nañ ci yàlla musal mooy xale boo xam ne du to du ci benn kër bu tayee ñu ping pong ko kër gi bu subaa ñu ping pong ko kër bi mais bu dee yaayam a ko yar kooku dina seetaan bu tayee mu yendu fii bu subaa mu fanaan fii nañ leen veillé ci njaboot gi lii metti na de te kaa yu mel nii liñ ciy am dafa bëri torop dañ maa maye woon sama bàjjana ma yar sama tàntaa ma yar fekk booba dans tout ça ana sa yaay yàlla nañ yàlla toujours bu fekkee ne sa yaay dafa génn àdduna sax ñu mën a comprendre mais sa yaay di dund maye la ba pare fàtte la metti na torop mu ngi noonu mbokk internet di lañ leen indiloon tey ci wàllu nettali di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali incha allah di nuyu suñu DG Sey Latir di nuyu madame Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax nuyu Kalidou Cissé le leader de la génération AS ñu ngi koy ziar bu baax a baax enseignant fële ca lycée Ahmadou Ndak Seck maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko ziar ay ca kanasatu moo nekkoon na ci caméra bi euh, feggoo ak euh, ay ay daba maa ngi koy ziar bu baax a baax nuy équipe bu technique bu Thiès info bu baax a baax Momar si laay seen ak kabam muy bandi bande lu ngi koy bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès info ñu daal di koy terminer ak suñu kasu café